foy la rek moma taxone jokk waaye sant na geureum na sa papa ak sa yaay li tax jimu ji rafet na torop ni nga solo dara Wai ci waye bima toge ak yow japp na ni xel mu rafet nga yor waye japp na ni tamit yar nañ la yar bu rafet waye yar bi bu ko yak ndax bima ne la jak gis la ngay dem ku bon la la tegon ndax nga solo ndax yere yi nga sol macha allah dafa cher lool waye cheray bi yëpp dang ko yak ndax nang ko solé ndax yaakaar ni bo sey cieur dina am nenen lu ma dikkee waaye ba ci bir am naa la waaye la ma ya ni nekk ya fi mi ngi fi ndax bi ma demee ba mëni la ba daf su darul dara lu yegg sa kaw nga puus ma dana ma ngi lay xamal nag lenn yaay góor gi ma war a jox suma bopp suma yaram bi daal di daw ma dellu ginnaaw ndax dama cee déggoon benn bis benn mag wax ma ci lu am solo mune ne ma bis boo ko yaay ubbi ñëpp ñuy jaar te waroo koo bàyyi te sama xel nekkul ci woon jàpp la jaar jàll la kon lay conseiller xamal bu baax ñuy xamal bu baax may waxal xamal bu baax may demalanteel quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp ñëpp ay góor lañ xam nañ nu mu demee bëgguñu si dara lu jaar jàll te bëgguma laa def nag koo xam ne jaar jàll ndax bàyyi naa rakk bu jigéen sama kër yow xamalaat nga ma àdduna démb ak bërki démb ñu ngi baax ba tey daan taa démb ak bërki démb boo demee di ko fa fekk waaye firnde laat nga ma ne taxul nit ki bon waaye man tamit maa ngi lay wax ni sa kaw yëre bu bon boobu nga sol ba ma jàppale yi ma la jàppee yow tamit jéem ko changé ndax changé nga ma waaye bëgg naa la changé bul yàq sa woy yaay bul yàq sa woy baay bul yàq sa woy famille ngir lan koom-koom alal bling bling day jeex te boo toogee rek yow ñi nga rafetee ni nga jekkee ni nga taaru soo toogee góor gu ma gën a baax dina ñëw te bu la ñëwee di nga xam ni téye sa bopp rek moo am solo suturaal sa bopp rek moo am solo am naa fu ma teg fi ma la teg nag moo tax tey ndax dugg naa sa biir kër ba sa famille yëpp xam ma sa yaay woo ma ci ruq ni ma doom maa ngi lay wax benn mbir benn bii rek laa am waaye fexeel ba nga sàmmal ma ko waaye bi ma la summee ba desul dara lu yegg sa kaw wax jooju moo ñëwaat suma kaw gëmuma la woon nag ni yaa nga ca waaye tey laa gëm ni ñu doon baax ba tey ñi ngi baax kon xamal ni bis ni ki tey doon naa sa mag bis ni ki tey doon naa ki nga bëgg ma doon ci yow yàlla xam na ni takk jabar dox ma woon jóg yàlla xam na ko fooye la rek moo ma taxoon jóg waaye gis naa ni bu ma la defaree di nga baax te gis naa ni mat nga jabar ndax dencal ma ko loolu rek laa lay ñaan ma dem te ñëw def ci yow loo xalaatoon nit dina ko def ci yow kon rakk jàppal ba mu dëgër tëjal ba mu dëgër bul ma ko jox bul ko jox sàmba bul ko jox ma dem demba ndax kooku ci jox mu jël kooku ci yombalal mu jël yow rek yaay seet bu la ko mbëggeel jaral bu ko dara jaral après ngay comprendre que ni dara jaru ko woon soo demee ba pare ci kon mbokk yi jàngeen jëf